asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 jeudi 5 octobre 2023 dañuy ñëw ak yéen ci revue de presse bi dooree ko kay di xibaar bi di stade quotidien Edouard Mendy ak André Onana ñoo fekk ci xët bu njëkk bi ñaari gardien la yoo xam ne de ku nekk ci ñoom ñaar yàgg nañu la ràññee foofu la ci Europe waaye jamono bii seen mbir doxul de Edouard Mendy de jóor la boo xamante ni dal fi jaf jaloore fii ci Sénégal tambalé saison bi ak légui Mom Edouard Mendy dafa daldi di encaissé lu bari bari fukki bal ak juróom daldi dina koy jël mom Edouard Mendy manam encaissé na lu tollu ci 15 buts bu dee ki nga xamné moy André Onana Mom itam nek gardien bo xamné dé de tambalé saison bi ak légui ciow dako top ndax performance yu bon yu muy def ak match ni roi Manchester United té mom itam ku ñu la won ci ay jamono dé ndax def na fi jaloore yu ñu mel ak Cameroun gagné nañ fi li nga moy kan naka nonu ñom dal nañ fi def ay jaloore Moy final li nga xamante moy Ligue des Champions ak Inter de Milan bobu sax yagul ni ki time mom waaye daal temps yi mom ay mbiram doxul dara ndax kat buñu xolé lu toll ci fukki bal ak juroom ñett dal dina ko jël manam 18 Edouard Mendy 15 mom André Onana dal di jël 18 wala mu nekk lo xamanteni kat doyna war ci ñaari gardien yo xamne yu ñu ràññe lañu won foofu la ci Europe wala sax ci aduna bi ñom ñaar nak ñu wara jëno bala yag dara fi lek ñaari semaine ba lu ko yées ndax xat buñu xolé le 16 octobre bile ci lañu wara football Sénégal Cameroun ci France mu nekk match bo xamne kat xañ na ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dina ci jekkal ab taxawayam wala jubanti li nga xamanteni kat moy taxawayam ndax li ñu jël ci ay bal bari na trop ku nekk ci ñom ñaar nak am na lu toll ci ñetti clean sheet bi ñu saison bi ak legi muy Edouard Mendy ak ki nga xamne ne André Onana way suñu gënde yi nga xamne ne football ci coupe du monde ba muy muuma yi ak tëx yi day dañoo tok de fu mu ne nii daal fi li ñuy xëccoo mooy place gëna biñu leen dóore ci li nga xamne moy demi finale ba Ukraine mo leen éliminer ci tiro biti li nga xamante ne moo leen déssé moy jouer 3e place seen digënté ak Égypte lay doon way tam suñu gënde yi nga xamne ne ñu ngi jouer ci Europa League bi tay jilé gannaaw bi ñu ci Ligue des Champions kon ci Europa League lañu jëm muy ñi nga xamante ne voilà ñoo di di Olympique Marseille ndax ki nga xamne moy mooy Iliman Ndiaye ak Ismaïla Sarr ñom ñaar ñëpp jamono bi sentu nañu jouer ci match bobu nga xamante ni balaa ñu marché war nañu ko am seen diggante ak Brighton muy match bu rëy ndax Brighton de équipe la boo xam ne day kon ya dañ mën a de temps nag seen mbir doxul ndax ci ay défaite la ñu waaye dinañu bëgg a seen taxawaay ci kanamu Olympique Marseille googule Elimane Ndiaye ak Ismaïla Sarr ñoo ngi leen di xaar ci li nga xamante mooy jogante googule mu war a xew nag bu ñeenti waxtu tegalee ñeent fukki simili ak juróom maanaam ci la deux matchs deux victoires ndax kat Barcelone ni démb dafa door ñi di waa Porto Manchester City daal di koy def ñi nga xam ñoo di RB Leipzig waaye ci jamono boobu nag ñi nga xam ñoo di Paris saint dañoo soox ca Newcastle Newcastle daal ñoo labal ñi di waa Paris jamono boo xam ne kat gisoon nañu ne waroon nañu jekkal seen taxawaay ndax match nul bi ñu jege ci weekend bi Newcastle daal di ci profito dóor ko ba mu tëdd ñeent bal ci benn journal bi dellu si waat na moom te mu ci liste ba naka noonu Zambo Anguissa moo ca Choupo-Moting moo ca ak ki nga xamante ne mooy Aboubacar kon bu ñu xoolee joueurs yi gën a mag jamono bi ci équipe boobu di Cameroun na desul ñoom ñëpp woon nañu leen ñu war ñaari match la am yu ñu war a joué xarito Sénégal benn képp moo koy xaar mooy boobu ñu war am suñu diggante Cameroun comme ni ma leen ko waxee suba ci ajuma bi Aliou Cissé dina publier li nga xamante ne mooy ab listam dinañ ci dellu si waat incha allah Tegi ji ci li nga xamantene moy Europa League de ak ñi di Olympique Marseille bi nga xamne seen match bu ñëk ba seen digënté ak Ajax kat dafa xawon takk suuf kat match la bo xamne ñu ngi doon marqué rek di encaisser 3 bi partout la jéxé won tay ji nak victoire la sentu rawati na seen entraîneur bu yes bi nga xamne moy Gattuso Eliman Diaye yu gis ko keroog mu joué ben mi-temps képp ci jongante gi marqué def passe tay ji ñukoy xaar mom itam ñu daldi koy départ lo mu daldi di xarañ xarañtem ci match boobule Ismaïla Sarr mom itam ñu koy xaar ci match bobu gëna blessure bi mu joggé ba keroog mu joué won ay minute ñom ñaar ñëpp ñoo ngi leen di xaar ci wara dox digënté Olympique Olympique ak ñi di waa Brighton waaye match bi nga xam ne Paris am nañ ko niki dem muy jël bu rëy bi nga xam ne daanu nañu ko loolu tam record dal dina ci dellu waaye Fallou Diagne bi nga xam ne dafa dellu na ci Europe dellu bi de joué ak Casa ba amaat fi li nga xamante ne mooy contrat delluwaat Europe Fallou Diagne nag jamono bi dafa dal dellu si fii nga xam ne mooy jaraaf loolu tam journal bi di record dal na ci dellu noonu la ñuy dal di dem Angleterre seeta kii xibaar bi di Mirror Sport Mirror Sport nag dal di ñëw ci match yi nga xam ne doon na xew ni ki dem ci Ligue des Champions bi ki nga xamante ne mooy Newcastle United dal di déngamaam wan ñi nga xamante ñoo di Paris Saint-Germain biddiw cëkk ndax ka démb li nga xam ne dal na Paris Saint-Germain séentuwuñ ko woon mukk waaye ne mooy seen ak jongante voilà ki nga xamante ni nag mooy Eddie Hearn daal di ñëw yàq lépp loo xamante ni kii di Luis Enrique teg na ko lu mu daal di tabax mu daal di koy toj voilà démb ni ki dégg maam jogante googule ñi nga xamante ne nag ñoo ne Paris ak Mbappé ni ni dañu dugg ci pression ndax kat bu ñu xoolee match nul la amoon coow topp leen ñu ñëw jëlaat defet bu ñu toll mën nañu wax ne day li nga xam ne mooy ñëw ci seen kanam coppite mënul xamantene di Paris Saint-Germain xaalis bu bare bare lañu def ci li nga xamantene moy marché bi ngir war mëna mën deugural seen équipe lo ci mëna a dégg daal coow topp na leen jamono bi gannaaw defet bu rëy bobu ñi di Miro Sport dal nañ ci ñew Miro Sport fàttewul li nga xamne moy Manchester City bi nga xamne niki dembu amna ndam ci moy RB Leipzig mo ne door na de waaye nak dé nga maam victoire bu yeex la manam dal jamono bi demoon nañu ba nga xamne jappo nañu ne match bi fay te waaye nak ci minute yu mujjé ci la Pep Guardiola dal di dé nga maam am ndam jogante ko gannaaw bi nga xamee ne di Julian Alvarez ak ki di Jeremy Doku ñoo marqué ñaari but yi nga xamne ñoo may ndam ñom wa Manchester City bu dee seen dëkkandoo yi di Manchester United ñoom jamono bi kat mën nañoo wax ne seen équipe ba coppite yaa ngay tàmbali ndax kat ki nga xamante mooy Marcus Rashford bi xam ne moom lañ jàpp ne sax mooy staru équipe ba njort nañu ne dinañ ko daldi drop maanaam génne ko ci équipe bi maanaam muy titulaire di ko teg ci banc bi muy xaar loolu dañ nañu bu amee bu mbett kenn de ndax li ko waral mooy Erik ten Hag jamono bi dafa nekk ci pression te gis nañu ne kat li nga xam ne moo waral ba mu war a def lu mel mooy dañoo gis ne kat 37 ans ngi nii mooy fanweeri at ak juróom-ñaar Manchester United mosul am ndorteel gu bonee gi mu am ren jile loolu nekk na mbir moo xam ne fi mu ne kat tax na ba bu fekkente ne ku mel ni Rashford dal dinañ ko teg ci banc bi bu mu kenn te loolu séntu nañu ne amaan dana xew faw mu am coppite yoo xam ne danañu ko def ngir war a mën bi ñu amoon bokk te Liverpool jëlee ca défaite ñii di VAR bi dal di def ay njumte ba ne bii bi nga xamante ni ki nga xam ne voilà mooy Luis Diaz marqué na ko hors la kii di Klopp nee na match boobu daal lenn rek koy defaraat moo ñu joué waat mu ne loolu képp daal mooy tax li nga xamante ne mooy mbir daal maanaam yi ñuy wax ni yëpp amul benn chance bi mu waxee loolu nag fans Tottenham yi ñoom tam am na lu mu jur ndax kat li tax mooy arbitre bi nga xam ne moo nekkoon ci pouvoir bi nii kat nee nañu li des ci saison bi yëpp dootul arbitré benn match Liverpool maanaam Liverpool daal buy joué arbitre moom du ci bokk maanaam du ñu ko dàq ci liggéeyam nag dina continuer di arbitré yeneen jongante yi mais Liverpool moom li des ci saison bi yëpp kooku du laal seen match loolu itam dogal la boo xam ne voilà ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi foofu la ci Angleterre dal dinañu koy jël loolu xibaar la boo xam ne fu ñu baaxee leen ko bu yàq lépp loo xam ne ñu ngi ko doon tabax mu ne ki nga xamante ne mooy entraîneur Newcastle United maanaam tacticien la de ndax li mu teg démb kat ak ni mu ko footballé dafay wane ne moom moo ëpp xarañte ki nga xamante ne voilà moo nekk foofu la ca Paris ndax kat moom dafa déngoomam yàq lépp loo xamante ne waa ji mu ngi ko doon tabax tactiquement moo gënoon taxaw waaye itam joueur itam engagement bi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe ci match ci biir terrain bi ñoo gënoon a déngoomam déterminé wu ñi nga xam ne ñoori waa Paris Saint-Germain loolu yëpp journal bi di l'équipe dal na ci ñëw moo tax mu ne ki nga xam ne mooy Luis Enrique fi mu ne ci pression la nekk de gannaaw defet bu dis boobu mu jël mu ngi ci pression la te pression bi da koy topp def ci saison bi yépp manam bépp match bu muy jouer ci fi ni dina xol bu baax limuy def ndax kat fi ni manam dañu wax ne bir mi mujjee naa dis ci bopam voilà pression bu reuy reuy mo nek ci bopam jamono bi lu ci Enrique ganna mbettel bi nga xam amna ko niki demb fofu la ci Angleterre wa ñu ngi xaar tey ab sok bo xam war na dox digënté Marseille ak Brighton muy ñaari entraîneur yo xam ñoo ñëpp ay italien lañu muy Gattuso ak ki nga xamante moy De Zerbi bi nga xam mom entraîneur bu xalañ la Pep Guardiola doon nako tag tàgg daaw te xam ne ki di De Zerbi day amna na mam xarañ xarañte de wàllum équipe ak ni football lo ay joueur mom wax nako niki daaw ñom ñaar ñi nak ñoo war rajaloo ni ki tey mu ne ki nga xamante ne mooy Gattuso tey ji lenn mooy liggéeyam mooy lépp lu bi dal di teg mu dal di koy teggi maanaam lépp lu mu joué mu déjoué ko maanaam loolu la xaar ci moom ki nga xamante ne mooy Gattuso ak ay goneem su ci mel ni ñoom Iliman Ndiaye ak ñoom Ismaïla Sarr match boobule nag tey ji bu ñeenti waxtu tegalee ñeent fukki ak juróom lay doon dina metti lool ndax Marseille bu ñu xoolee dañoo bëgg a voilà Marca nee na dalal li nga xam ne mooy coupe du monde loolu la wax ne nee na dinañu dalal coupe de monde bi gën rëy te mooy doon bi gën neex ci li nga xam ne mooy atum loolu Marca moo ko daal xam ne nee na coupe monde bi ñuy xool ci nii lañu koy footballé lu toll ci juróom benn réew danañ ci football ay match waaye nag lu toll ci ñetti continent yu bokkul teewul dinañu bokk organiser li nga xam ne mooy coupe monde boobu la ndax li tax mooy nee li nga xam ne mooy téeméeri at bi ñu tàmbali coupe monde ak léegi moom la ñuy football su ko defee ñetti match yu njëkk ñu ngi koy footballé Uruguay Argentine ak Paraguay foofu la ñuy ñetti match yu njëkk yi la ca des nag ñu ngi koy footballé ci diggante Maroc Espagne ak foofu ca Portugal mu ne bu Espagne nag ñu ci ëppale ndax lu toll ci ci match ëpp ci match yi foofu la ñu koy loolu tam kay di xibaar bi di marque dana ko indi mu ne day lu tot ci 48 ci ay équipe maanaam ñeen fukki équipe ak juróom-ñett ñoo cay football de waaye ci kaw loolu le nee na lu toll ci téeméeri match ak ñeent lay doon maanaam ay match dinañu ko football ci li nga xam ne mooy coupe du monde la kon match yi dinañ bëri trop waaye nee na dina neex loolu te mooy doon the best world cup in history loolu kay sonon ci match bobu nga xamne doona dox sen diggante ak Porto néna Ferran Torres nak mo marqué bit bi nga xamne mo moo leen may ndam ci jogonté gogulé bu nak nag Atletico de Madrid ñom itam ni ki Griezmann ak Morata nyoran leen jappalé ba ñu mucc ci li nga xamanteni moy pièce nyom ñu leen tégalon way ñom dañoo daldi déllu ci daldi ci am ndam ki nga xamne moy Morata dafa daldi li nga mam amal ab doublé Griezmann marqué benn bit loolu tam kayiti xibar bi di marqué daldi nakoy indi bu ñu bàyyee Marca jël xibar bi di AS dafa déllu ci wat ci coupe du monde bobulé néna suñu gënt matna ñi di FIFA daldi nañu dëggal li nga xamne ne suñu gënt garanteel nañ né dañu dara li di coupe du monde bi ñu amal ci 2030 balaa ndax kat ñu ko war a dalal ci diggante Espagne Portugal ak Maroc mu ne xanaa lenn day moo ci dolleeku mooy ñetti dëkk yi ñooy football match yu ñoo koy dalal Uruguay Paraguay ak Argentine foofu la ñuy footballé ñetti match njëkk yi ngir féetee téeméeri at waaye de jàpp nañ ne coupe du monde bii bii doon njëlbeen bi yoon ñuy football ab coupe ci diggante ñetti continent te jàpp nañ ne mooy doon coupe bi dàq ci li nga xam ne mooy histoire a xew ci atum 2030 waaye nag ki ñu dédé dina nek joueur bo xamanteni dina marqué jamonom de ndax ki nga xamanteni mom lañuy wax capello nga xamné ab entraîneur la won del pero nekkon joueur bu ñu rañé won ci ay jamono ak international press bi moy ñi nga xamni ñoy taskato xibaar ñepp nga wax ci mom té japp nañu né manam ki nga xamanteni moy bellingham dina don joueur bo xamanteni dina marqué jamono man dina don ku ñuy ko dina fi def jëlor yu reuy ci ay jamono lool nekk na mbir mo xamné ñu koy waxtaane néna ci aduna wërngal képp lool tam di xibaar bi di as moko dal di indi bu dé barcelona niki dembu door nañu porto ben bal ci dara way néna dembu son nañ de coono bi ñu daj dembu metti na trop waaye ndax ki nga xamante ne mooy Gavi dañ ko dàq de maanaam dañ ko jox carton rouge ci li nga xamante ne mooy match boobu coono daal ci la ñu li nga xamante ne mooy jogante googu ak ndam benn bal ci dara bu ñu di xibaar bi di sport moom itam te loolu la dal di dellu mu ne Ferran daal démb mooy ci génne mu ne match démb bi waaye boo xam ne waaye Barça génn na ci de am na ca ndam de te ndam loolu ñu am ndam lu rëy la ndax gëna jégé suñu qualification ci li nga xamanteni moy ñaarël tour bi moy lo xamné yag nañu ko wër dé way nekkon lu jafé la Ferran Torres niki dem jox na ndam Barcelone ben bal ci dara ci kanamu ñi nga xamanteni ñoo di wa Porto way nak and ak ciono bu metté metti mu né ci match bobu dal lu ñu mëna wax né dal xagna ci ñom ñu lañu gëna rañé ci match bi bokku na ci défenseur yi ak gardien bi ñoo ci gëné Barcelone mu né Jules Koundé ak ki nga xamné moy Arrojo ak gardien bi di Ter Stegen né dal ñi dal bu ñuy xol niki dem ñom ñoo doon jambar yi ndax ñom ñoo gëna fess ci li nga xamanteni moy match bobu ñu doon am suñu digënté ak Porto lool espoir moko dal di indi bu ñu ñëwee ci mundoo di Portivo moom itam mu dellu si waat ci xam ne leen ni ki démb de am nañu ndam de dëgg la de ça veut am na ñaareelu ndamam waaye match boo xam ne extérieur loolu maanaam dafa génn ba noppi dal di ci am victoire ci kanamu Porto te match boobu nee na moo doon téeméeri match boo xam ne Xavi mu ngi koy tàggat Barcelone waaye génn na ci ak ndam ci kanamu Porto goo xam ne Porto gu tar la woon Porto bi dénk ni ki démb tar dëgg la defoon ci kaw Barcelone nga xamanteni moy jogante gogu Barcelona doon am digënté mak ñi di wa porto lo ci mëna dégg dal ndam la lo xamanteni dal and nak ciono bu metté metti sport indi nako mundo di tam dal di ci delu ci buñu jëlé kër xibaar bi de corriere dello sport mom dafa ñëw ci match yi nga xamné Italy ñom doon nañu ko am niki dembu lazio de ñom niki dembu am nañu victoire de ñaari bal ci benn lañu dal di door ñi di celtic glasgow wa ci match bobu de buñu xolé ki nga xamné moy pedri wala pedro gonzalez wa ci match bobu de buñu xolé ki nga xamné moy pedro rodriguez moy nek ab espagnol mo leen jox ndam de ci jamono bo xamné bo match bi jeex na néna 95 15e minute ci la kii di Pedro dal di dugal bit boobu nga xamante ni moo jox Lazio victoire muy victoire bu am solo tax ndax jamono bi ñoom ñoo jiitu seen pool ñoom waa Lazio waaye nag ñi nga xamante ni ne ñooy AC Milan ñoom dégg am goalless draw la ñuy def te maanaam marqué wuñu benn but seen diggante ak Dortmund 0-0 la jogante googu dal di jeexee waaye tam ki nga xamante ne mooy Victor Osimhen moom itam fës ci kayiti xibaar bi ndax kan mu ngi la de ki nga xam ne mooy De Laurentiis nga xam ne mooy président wu Napoli bi pare na ngir jox ko li nga xam ne mooy contrat bu yees moom li xam li mu xamle mooy fans yi nañu ànd ak dal wala ndax fii moom ñëpp a kontaan amu fi kenn ku mer fii ci Napoli te ñu ngi waxtaan waxtaan ngir war a dégg maam prolonger contrat ki nga xam ne mooy Victor Osimhen Osimhen dina prolonger contrat am voilà man pare naa pour négocier maanaam ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy yokkute contrat boobule ndax fii moom ñun ñëpp a ngi bég loolu tam mbir la moo xam ne kayiti xibaar bii di de dello Sport dal dina koy indi Osimhen nag nekk joueur boo xam ne ñu bare kay topp rawatina ci Europe fan yi ñu génn déggoon ngeen ay club yoo xam ne ñu ci Europe ñu ngi ràññi leen ñu wane ne dañoo bëgg li nga xamante ne mooy gone gile bokk na ci équipe bu mel Real Madrid doon ngeen dégg ñu koy ak yeneen équipe ba ci Arabie Saoudite sax am équipe yoo xam ne doon nañu wane ne dañu ko bëgg moom kii Victor Osimhen 150 millions d'euros nag mooy li ñu jàpp ne moo ko war a génne foofu la ca Napoli waaye nag ki nga xam ne mooy président bi pareegul ngir bàyyi ko mu dem li mu bëgg mooy yokk contrat bi mu dal des foofu la ca Napoli. gars loolu lañ gënoon a jàpp kon ci kayiti xibaar yi continuer leen di suivre Sen Sports 221